alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala rasulillah bokk yi noo ngi yàlla sunu borom tabaraka wa di julli ci yonentam ba sallallahu alayhi wa di leen nuyu ca lislaam muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu dellu si waat ci sunu fàttalik tafsir incha allah tey noo ngi fas yéene mottali suuratu takwir nga xam ni moom lañ tàmbali woon ci semaine bale jàll ñu yemoon ci laaye fukk ak ñeent fi yàlla sun borom di waxee alimat nafsum ma ahdarat kon tey ñu war a tàmbalee laaye fukk ak juróom di fala uqsimu bil xunnas kon sun borom ba nga xamee ni wax na àdduna buy tukki na mi mel ak na mi def wax la ca xew lépp borom bi wax ni ëllëg yowmal qiyaam su lépp dajee bakkan bu ne danga xam li nga daan jëf ci àdduna fekk àjjana teew sawara teew lépp teew malaakay sunu borom yépp taxaw yàlla nag mu ni falaa uqsimu bil xunnasi yàlla mu ni falaa déedéet bil xunnasi yàlla mu ni maa ngi waat ci biddiw yi nga xam ni dañuy làqu ci biddiw yi nga xam ni dañuy làqu mooy lan fii sunu borom mi ngi bëgg a wane ak kàttanam borom bi moo bind lépp bind ñépp am na sañ-sañu waat ci bindeefam yi lu ko ci neex waaye nag bindeef yi ñun ci sunu bopp ci yàlla rekk lañuy waat borom bi kon buy waat ci am mbir ma nga ca bëgg a wone ak kàttanam ak na loola tolloo ak kémtaani sunu borom mi biddiw yi ngay gis tey nekk ci asamaan tasaaroo lool bu fekkoon da nga toog bu bëccëg nga génn taxaw xool ci kaw asamaan si doo seen dara doo seen benn biddéew ab jant rekk nga fay seen bu leer nàññ kon leeraayu jant bi dox na sunu diggante ak biddiw yi ba gisuñu leen loolu nag kàttan ak sunu boroom la ndax nees tuut bu jant bi soowee nga taxaw ci biti teen ci asamaan si dangay ngay seen biddiw yi tasaaroo ci asamaan bari lool loolu ci kàttan ak sunu borom la ak kéemtaanam waaye su bëccëgee doo fa gis biddiw te terewul biddiw yaa ngi fa ba tey loolu ci kàttanug sunu borom la yàlla moo tax mu ni maa ngi waat ci biddiw yi nga xam ni dañuy làqu seenu leer day làqu su bëccëgee aljawaari waaye biddiw ya nga xam ni dañuy daw alkunnasi dugg nag ca palaas ba nga xam ni moom la leen sunu borom bindal di suturlawu maanaam dafa am lu ñuy wax ay orbite borom bi tabaraka jant bi ci boppam am na aw yoon wu muy jaar di dox di dem moom jant bi ci boppam naka noonu weer wi ci boppam it am na aw yoon wu ko sunu borom rëddal ci kaw asamaan si fa lay jaar di dox di dem wa shamsu tajri li mustaqarin laha comme ni ko sunu borom waxee ci weneen saar waaye noonu la bindee biddiw yi it utal leen béréb bu ñuy dugg loolu sunu borom tabaraka wa taala ne ne mi ngi ciy waat yii yépp mu dajee nag loolu day wane kàttanug sunu borom tabaraka wa taala bi ci yàlla waatee ba noppi nag yàlla teg ca ni wal layli nee na mi ngi waat ci guddi ida as-asa soo xamee ni lëndëm gi mi ngi dugg si maanaam guddi gi ci boppam bu lëndëm gi di dugg si ba keroog lëndëm gi di muur jaww ji yépp sunu borom nee na mi ngi waat ci loolu loolu ci kàttanuk yàlla la da ngay gis bëccëg gi foo toll da ngay mën a séen la nga bëgg a séen li nekk ci sa kanam lépp loo bëgg xool dangay sëgg xool ko gis ko moo xam muy lu ñu bind wala muy sa moroom wala muy leneen ak leneen waaye boo toogoonu diggante ba nga xam ne jant ba sona dangay gis ni asamaan si ci boppam ak jaww ji ñi tàmbali di lëndam di ñuul di ñuul day dem ba ñuul kukk loo bëgg a gis faaw nga wut loo leerloo ngir mën koo gis loolu ci kàttanuk yàlla la ndax yàlla yuuliju layla fi nahaari wa ju nahaara fi layl yàlla mooy jël guddi ak bëccëg dugalante leen dugal bi génne bi noonu la ñuy dundee ba àdduna di tukki day leer naññ su bëccëgee jant bi leeral bu guddee sunu borom nëbbu jant bi lépp lëndam waaye biddi yaa ngi fa taxaw yàlla mu ne mi ngi waat ci loolu waaye wa subhi yàlla mu ne mi ngi waat ci suba ida soo xamee ni mi ngi nokki maanaam nokki mooy mi ngi indi ak leer ndànk-ndànk ba keroog muy leer naññi gis nga timis day lëndëm di lëndëm di lëndëm day dema dem ba lëndëm këriis noonu la suba di mel suba it buy ñëw day leer di leer di leer di leer ba dem ba leer naññ naññ noonu la sunu borom di doxalee mbir yi te tey bu doon lëndëm guddi bu doon lëndëm ngay gis muy lëndëm doo ma a xam ni sunu borom a ngi am lu muy rocc wala am lu muy dugal da ngay toog toog rek gisatoo sa bopp gis lépp lëndëm crise bëccëg gi buy ñëw noonu la doo gis sunu borom taxaw di rocc wala di dugal lii di génne lii da ngay toog muy leer di leer ba keroog lépp leer naññi loolu mu ngi bokk ci kàttanu sunu borom yi tabaaraka wa yàlla mu ne mi ngi waat ci loolu waa sunu borom lii lépp muy wax lu mu ci bëgg a waat yàlla mu ne innahu innahu maanaam la nga xam ni mooy wér te wér lii di alquran ji ngeen di sikk sàkka kon sunu borom alquran lay bëgg a wax booba yéefar yi dañuy weddi alquran bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëwee di leen ko wax ñu naan ko ax ah, lii daal ay léeb la ay waxi caaxaan la ay waxi dof la yàlla bi mu waatee ba noppi mu ni innahu ni lii di alquranul karim ngeen ci sikk sàkka la qawlu rasulin karim wax la joo xam ni ndaw lu tedd lool moo leen koy indil di leen ko jottalil kooko mooy jibril yàlla mu ni alquran ji wax la joo xam ne suñ borom da koo teg ci loxol ndaw ndaw lu tedd ni ko yóbbul ma ko àdduna kooko mooy jibril kon suñ borom a ngi wax ni kàddu gi sama kàddu bopp la muy lu wér ma teg ko ci ndaw lu tedd lu baax muy jibril ndaw lu ma jege lool ma jël alquran teg ko ci loxoom ni ko yóbbul ma ko ci àdduna tegal ma ko ci loxoy loxol muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi mu jaar gis nga sunu borom a ngi wax alquran fi mu jaar nee na nag ndaw lu tedd loolu di jibril di quwatin yàlla mu ni borom kattan la nag jibril ci boppam borom kattan la lool ci lépp lu ma ko digal bu ma ne ko demal defal ma lii da koy def ci na ma ko bëggee ca kattan la koy defee maanaam da koy def defin goo xam ne day mucc ayib da koy def defin gu set gu leer muy ku am kàttan nag loolu moom jibril boo ko seetloo am na dëkk boo xam ne suñ borom ba mu leen bëggee alak dafa yebal jibril ne ko demal ca dëkk ba nga taxaw nga yuuxu boo yuuxoo rek dëkk ba yépp alku ba jibril ñëwee dafa yuuxu rek dëkk ba yëpp alku ñépp jootu loolu kat borom kàttan na ko man koo xam ne bu yuuxoo rek dëkk bi yëpp tas kooku borom kàttan la sun borom mu ni borom kàttan la moom jibril waaye it makiinin di borom place bu kawe inda dil arshi ca yàlla yàlla mu ni jibril mi nga xam ni damaa jël alquran teg ko ci loxoom ne ko yóbbul ma ko ci muhammad ku am kàttan la waaye ku am place bu kawe la fii ma nekk man man yàlla fi ma ne jibril am na fi place bu kawe lool ndax mooy ki ma gën a jege ci ñi ma bind ndax moom laa yebal ci ki ma gën a bëgg di muhammad alayhi salaatu wassalaam kon yàlla dana jibril am na place bu kawe ma kiinin waaye it moom jibril mutiin thamma yàlla mu ni jibril ci boppam ku ñuy topp la maanaam malaaka yi ci seen bopp dañuy topp jibril dañuy topp ndigalu jibril ndax suñu borom day jël ndigal jox jibril jibril wax leen ñoom ñépp ñu topp ko ci ndigal googa loolu yàlla suñu borom defal na ko jibril malaaka yépp dañu koy topp ci ndigal waaye nag amiin jibril ku wóor la ku wóor la kon suñu borom gis nga alquraanam ji fonk gim ko fonk moo tax mu teg ko ci loxol kii mu leen di wax muy jibril di ko am kàttan di ko am place bu kawe ci yàlla koo xam ni su waxee malaaka yépp déggal ko waaye mu nekk ko wóor lool ba sunu borom wóolu koo jox alquraan ni ko yóbbu ko ndax du ci teggi benn baat lépp ay mat sëkk bi yàlla waxee loolu nag mu war a ñëw ci muhammad mi nga xam ne nag moo nekk ak ñun di dund di nit ñu koy xam mu xam ñu muy lekk ñuy lekk muy naan ñuy naan yàlla nag mu ni wama saaxibukum bi majnuun nee na wama bi majnuunin maanaam du ab dof de saaxibukum maanaam seen xarit bii ngeen xam ko moo xam leen di muhammad nekk seen doom nee na doful de li muy wax du waxi dof de waxi ya waxi yàlla sunu boroom la bi ko sunu borom waxee ba àggal da ko teg ci loxoy ku wóor di jibril ni ko joxal ma ko muhammad mii nga xam ni ku am xel la ku wér di ko wóor ci yéen yàlla mu ne wa maa saaxibukum bi majnuun ku wóor la du ab dof yéen a yaakaar ne ab dof la yéen a bëgg a jàpp ay waxam yi waxi caaxaan waaye mukk wax ju wér la ju gu jóge ci man te du ab dof nag de li muy wax xam na ko bu baax ndax ma ko ko wax yàlla mu ne wa laqad ra'aahu moom day gis na ko maanaam muhammad gis na jibril bil ufuqil mubiin ca gox yu kawe ya lool ca gox yu màgg ya ca gox yu tedd ya kon sunu borom dogal na yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis na ak jibril ca gox yu màgg ya fa nga xam ne sunu borom a ko màggal kon muhammad dub dof yàlla mu ni wama huwa moom muhammad mi nekkul koo xam ni bi daninin ku nay la alal xëy bi ci kumpa yàlla mu ni muhammad nekkul ku nay ci kumpa de mboolem lu ma ko xamal rekk ñëw na xamal leen ko yéen bindeef yi mboolem lu ma ko xamal ci aw yiw ak lu baax moom Muhammad nayut téewu ko dafa ñëw jàngal leen ko ba ngeen xam ko waaye mboolem lu ma ko xamal ci luy lor nit xamal na leen ko ba ngeen xam ko man ko wattandiku kon du ko nay kon islaam ci boppam amul secret amul nga ñëw ci diw naan ko teng maa jox secret saar sàngam secret aaya sàngam déedéet alquran suñu borom tënku ci secret alquran ci boppam amul secret ju ñuy nëbb ak di ko mayeeg di ko joxe wala awma ci ndigal ak am naa ci ndigal yàlla moo jël alquran teg ko ci loxoy jibril ni ko joxal ma ko muhammad muhammad na ko tasaare ci ñépp jot ci moo tax yàlla mu ne nayut ci amut leen lu muy denc naan boo ci amut ndigal bu ko joxe waaye lépp da ko joxe ba mu jeex takk moo tax bi muhammad alayhi salaatu wasalaam laata joge àdduna nee na leen ala hal ballaghtu waaw ndax li ma sun borom waxoon lépp wax naa leen ko ñu ne ko balaa aha wax nga lépp ba mat ci la muhammad ne ko sunu borom allahumma fashhad yàlla sunu borom seedeel ni la ma waxoon lépp wax naa ko bàyyiwu ci dara nëbb ma ci dara secret amut fi lu may joxe ndigal ak leneen dara amut ci li ma wax lépp wax naa leen ko kooku mooy muhammad alayhi salaatu wasalaam mooy wa maa teg ca mu ne wa maa huwa nee na alquran ji nekkul de bi qawli sheytaanin rajim nekkul waxe seytaane sa nga xam ne sunu borom da ko dàq ci yërmandeem nee na alquran du waxe seytaane de du waxe seytaane sa nga xam ne sunu borom a ko dàqal boppam ci yërmandeem déedéet waaye nag waxe sunu borom la ju wér jaar ci ay loxo yu wér yu wóor lool diggante jibril di ki gën a jege yàlla ci bindéef yi jaar ci loxol Muhammad di ki yàlla gën a bëgg ci nit ñi di ki gën a jege yàlla ci nit ñi gis nga ko kon yàlla mu ni fa ayna tadhabuun waaw ana seen xel yi fan la seen xel yi di dem bi ngeen xamee ni alquran ji waxi suñ borom la jaar ci loxol jibril di ko wóor dikk ci loxol muhammad di ko wér mu jàngal leen ko ba ngeen xam ko ana seen xel yi fan la dem lu tax seen xel yi di weddi lii fan ngeen jëmati kaay leen gëm yàlla kaay leen dëggal muhammad sallallahu alayhi wa <clears throat> mooy fa ayna tadhaboon yàlla mu ni in huwa illa dikrun lil aalamin nee na ji aw waare la ak fàttali la ñeel bindeef yi yépp ak waare la jóge ci yàlla jëm ci mboolem nit ñi ñépp mooy in huwa illa dikrun lil aalamin nee na ji day nekkut lu dul ak waare ak fàttale jóge ci yàlla jëm ci mboolem nit ñi ñépp yàlla nag mu ne liman shaa ay an yastaqim ku mu neex ci yéen na jub na baax sax ci dëgg ak ci gëm yàlla kum neex ci yéen na ko def lii nag ba ko suñu borom waxee yéefar yi dañ doon ndamu naan ah kon kay baax na kon kum neex gëmal kum neex weddil ku nekk libre na gëm ku nekk libre na bañ a gëm ba tey jii am na ñu ko pas nag am na ñu fas loolu de ci biir nit ñi am na ñu ni gëmal sa gëm bàyyi ma ma gëm sama gëm bu la neexee nga gëm yàlla jullil wooral waaye man bàyyi ma ma gëm li ma gëm demeewut noonu moo tax yàlla teg ca laaye ji yàlla mu ni wa ma tashaauna illa an yashaa allahu rabbul alamin yàlla mu ni du leen neex nag ngeen sax ci gëm yàlla de mukk lu dul dafa neex yàlla subhaanahu wa taala maanaam kenn ku ci nekk soo góor góorgóorloo sun borom yombal la ak gëm yàlla ak ragal yàlla léegoo-léeg nit nekk ci tooxi doona ak ci mooy yàlla nga koy wax mu ne la man daal li ma gën a jafe mooy julli ci waxtu wa wala li ma gën a jafe mooy toog concentré wu jàng alquran fekk déedéet nit ki su fekkee dafa toog ni looloo ko jafe yàlla day toog di ko seetaan waaye su góor góorgóorloo bëgg koo am di góor góorlu di góor góorgóorlu yàlla nee na ku góor góorgóorlu ma jàppale ko yombalal ko mbir mi walladina jahadu lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma al muhsinin kon pour nga gëm yàlla gëm gu dëggu sax ci siraatal mustaqim da ngay góor-góorlu waaye ànd nag di ñaan yàlla mu saxal sab xol ci topp yàlla mu saxal sab xol ci topp yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam bari na lool lu mu daan fàttalil saxaaba yi naan leen dee leen ñaan yàlla mu saxal seeni xol ci gëm yàlla ci topp yàlla ci dina lislaam bari na lool lu mu koy wax saxaaba yi kon nag yow mii di ab jullit di mbindéef góorgóorlul ci topp yàlla soo bëggee am yàlla waaye nag del ñaan yàlla mu saxal sab xol ci topp yàlla ci siraatal mustaqim lii rekk mooy dund gi nag ba keroog ñu fi jóge yàlla dafa waxoon muhammad ne ko waabud rabbaka xatta yatiyaka al yaqiin jaamul yàlla ba keroog dee di dikk bul ma sa découragé bul ma sa tayel loo man ci góor góor góorlul ba keroog dee di ñëw kon mbokk yi loolu mooy suratu takwir maa ngi delloo di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu boole nu saxal ci siraatal mustaqim di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal nu jàmm adduna ak alaaxira defal ko mboolem jullit wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh